mbokki internaute yu seen teranga tv comme niñ ko saxoo di defee saa su ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal amaat mbégte àndaat ak yéen ci beneen numéro ci beneen numéro émission valise diplomatique comme niñ koy defee saa su ne waxtaanee lépp lu jëm ci actualité politique tey nag ñuy dalal Aby moom mu nekk ci parti PRP parti républicain pour le progrès du candidat Déthié Euh, naka noonu tamit ñuy dalal euh, ci plateau bi Abdou Khadre Gueye bu APR Alliance pour la République bu ko defee rek ma bàyyi la Abdou Khadre nga nuyoo. waaye ça va maa ngi nuyu ñi ñu seetaan ñëpp di nuyu abi sama co-débatteur di di ñaan yàlla débat bi def ko dans les meilleures conditions. merci abi ma bàyyi la rek nga nuyoo ak euh, mbokki internet yi. merci beaucoup Fatou maa ngi lay nuyu di la remercier ci invitation bi. Euh, di nuyu suma frère Abdou Khad aussi euh, di kontaan vraiment tey jii ñu teew fii nii ci seen teranga pour euh, débattre ci actualité politique voilà comme ni ma ko waxee rek fas yéene waxtaanee lépp loo xam ni actualité politique la te gis nañ ni fi mu nekk nii campagne électorale bi moom mooy actualité xam naa foofu rek la ñuy jaaree euh, abi ma bàyyi la rek nga wax ñu kan mooy Déthié Fall parce que Déthié ñu ci bëri dañ koy dégg rek mais dañ koo umpule. effectivement bon ñi ko umpule nag peut-être dañ dul suivre bu baax. mais mm-hmm. je pense que Déthié en ce moment nekkatul ku ñu présenter sénégalais yi Déthié mooy doomu Sénégal bi nga xamante ne fi la juddoo fi la yaro fi la màggee fi la jàngee am fi ay diplôme di fi liggéey donc nekk doomu Ndar Saint-Louisien la fa la juddoo aussi mu ngi dugg ci politique en 2004 euh, avec Idrissa Seck di ko mhm. soutenir donc euh, mu def mu cheminé ak moom pendant 18 ans d'opposition ñu am seen ay vision yoo xamante ne vraiment partagé wu ñu woon euh, la logique politique de pouvoir bi fi nekkoon mm-hmm. donc bi mu ànd moom ba en deux mille vingt et un deux mille vingt Idrissa Seck di rejoindre la mouvance présidentielle ak Macky Sall mm-hmm. donc moom ak ñoom ñaar gisul bokkuñu gis-gis parce que Déthié ku ko xam xam ko ci logique xam ko ci principe mm-hmm. donc euh, moom mu gis ne yoon bi mu tegoon tànkam àndandoog moom bokkatul donc moom mu retiré wu continuer ci logique am continuer tamit ci principe am yi mu mës a am ci démocratie ak gis-gisam donc si la àndandoog ay collaborateur am teg parti wam muy parti républicain pour le progrès ñu koy wax PRP ba tey jii nii mu def alliance def une grande coalition mu nekk la coalition Déthié vingt 2024 nekk candidat à l'élection présidentielle donc Déthié c'est un ingénieur polytechnicien directeur euh, industriel bu nekk fii nii ci benn entreprise bu mag bu nekk Sénégal mm-hmm. voilà gis nañ ni door ngeen euh, campagne bi démb sax yéen a ngi woon Mbour tey euh, Déthié mu ngi foofee ci Kaolack euh, campagne gi si ndorteel gi ndax amoo leen ay jafe-jafe. amuñu ci ay jafe-jafe parce que euh, on s'est on s'est on s'est organisé depuis les, le début. donc mhm. ñun pare woon nañu depuis euh, février. pour avant report yi même donc avant report yi même pare woon nañ. donc bi ñu joxewee date bi conseil constitutionnel acté ko donc ñun dañoo jóg rek bi mu jotee donc euh, la coalition Déthié Fall 2024 avec le président Déthié on a commencé la campagne lancement bi ñu ngi ko defee Parcelles Assainies donc euh, ñu defal honneur boobu la population parcelloise ñu dugg fa def fa caravane bu mag jaar fa demb ñu ngi woon euh, def nañu Ngeexoox Mbour Fatick tey jii nag président Déthié mu ngi doon sillonné Kaolack bu fa jógee dafay dem Nioro après mu dem Gossas nem Gossas voilà nun laay def rek tourner ci Abdou Khadre Abdou moom euh, bokk ci parti Alliance pour la République APR Abdou Khadre euh, début campagne bi comment ça se passe ak Amadou Ba bon ça se passe bien mm-hmm. vraiment xam nga campagne mm-hmm. bon bu fekkee yàggoo dem sir le terrain day am danga mën nga am problème mais bu nekkee yàgg nga ci terrain bi du nit ñi soxlaa gis la bu bu say bu say bu sa réew amee jafejafe nga taxaw say dëkkandoo nekkee ci ay jafe nga taxaw je pense que campagne boo ñëwee da ngay répéter rek la nga nekkaan la nga nekk daan def mhm. donc moo tax actuellement on est à l'aise ñi ngi dérouler euh, on a commencé hier par Guédiawaye ensuite Keur Massar mhm. aujourd'hui ñi ngi ñi ngi ñi ngi à Mbacké à vingt mhm. donc euh, je pense noonu la ñuy poursuivre affaire yi ba le vingt quatre incha allah ñu dem ci élection jàmm yàlla may ñu ndam au premier tour. Hmm. d'habitude dañ doon faral di gis ni ouverture campagne bu amee bon lu ko ëpp mooy yi jot a wees sen seen candidat daanu woon dooree Dakar par contre Dakar la doon tëjee lu ni mel nag ñu gis ko ci Amadou Ba mu dooree Dakar est-ce que tamit euh, mënuñu si poser quelques question par rapport à cela. effectivement. Hmm. loolu loolu en fait xam programme la. d'habitude gars yi c'est par rapport à leur agenda ci la ñuy mm. def seen programme mais c'était exceptionnellement c'est vrai que les deux dernières présidentielles yu am Sénégal avec le candidat le président Macky Sall on a toujours démarré par Mbacké ensuite aller vers le le nord ñu dem mm-hmm. après ñu def le tour euh, jógee Ziguinchor wàcc si Kaolack après mujjee Dakar mm-hmm. donc ça sera la même chose aussi parce que euh, démb malgré qu'on a fait Guédiawaye Kër Massar président Amadou Ba tey bu demee Mbàkke du duggaat Dakar ba vingt deux incha allah donc hmm. il va faire le tour su jegee Mbàkke day dem après Louga Daaru Moussi su paree mu continuer vers euh, Saint-Louis après mu dem maatam wër dem Tamba Kédougou Mat Kolda Ziguinchor Sédhiou après mu def euh, Kaffrine defaat Kaolack Mbour Thiès Rufisque après mu duggaat Dakar Mhm. donc je pense à partir d'aujourd'hui incha allah du duggaat Dakar du jàmm rek day am. Mhm. waaw je pense noonu la noonu lay demee. Mhm. gis nañ tey euh, journal boobee di euh, Source A dafa génn révélé que ni euh, Amadou Ba que ni le président Macky Sall ak ñenn ñi nga xam ne ñoo daan financer campagne APR Benno Bokk Yaakaar dañoo toog yoon nanguwuñ ko financer ci campagne lu ni mel lan moo ko indi est-ce que mën nga indi des explications par rapport à cela. bon sincèrement je ne dirais pas que euh, am na ñu doon financer campagne Macky Sall te financer wuñ campagne Amadou Ba je ne le dirais pas. l'essentiel mooy nous la jeunesse républicaine ñun ñi nga xam ne ñoo faloon le candidat Amadou euh, le euh, le président Macky Sall en 2012 falaat ko en 2019. Mm-hmm. quels que soient les moyens du bord. dinañ def lañ defoon ba fal Macky Sall ñaari yoon dinañ ko def fal Amadou Ba incha allah l' essentiel c' est pas les moyens qui comptent. l' essentiel c' campagne tam ku ko dégg xam na ni ay moyens ci la bokk. tamit effectivement ay mm-hmm. moyens ci la bokk. mais xamoo xamoo d' habitude man du ma bëgg di aventure ci la xam wóoruma comme comme li ma wax c'est mm-hmm. juste source ko bind. que y' a mm-hmm. des peut être des bailleurs yu doon yu doon financer la campagne de du du du candidat Benno Bokk Yaakaar. on l'a pas vu pour l' puisque nous sommes au début des des campagnes électorales donc je pense que pour l'instant mënul guñ conclure loolu mais l'essentiel mooy ñun quel que soit les moyens du bord ñun dinañ jël liñ am ñu dem fañ daan dem suñuy nit waxtaan ak ñoom jéem leen a convaincre encore une fois au soir du mars incha allah ñu fal le président Amadou Ba au premier tour mais tey lu ni mel nii bu amee mënees nañu ne voilà Amadou Ba il est laissé à lui-même parce que bu fekkee bennoo dañu jël taxaw jiital que ne mooy seen candidat alors que ki nga xam ne moom mooy euh, Macky Sall jàppalewu ko ci campagne yi donc dafay firndeel ni lañ doon wax ni président ak Amadou dañoo am ay problème da koy firndeel lu ni mel. bi bi bi président Amadou Ba wootee assemblée générale au niveau du King woo woote woote directoire campagne bi ce qu'il a dit parce que man noonu laay doxee Amadou Ba dafa am lu muy wax mu ne sëñ Mountakha moo ne ko njiit danga koy bàyyi ak boppam bokk sa bopp ñun ñi topp Amadou Ba aussi dañ ko bàyyi ak boppam bokk suñu bokk suñu bopp moom bu fekkee ne eh, li muy doxalanteeg Macky Sall loolu moom la engagé l'essentiel mooy kë que président Macky sàll wala mu am ñu nga xam dañoo bokk ci biir benn Bokk Yaakaar jàppale wuñ ko loolu ñun amuñ ci problème. Mhm. ñun instant pour l' instant nii nii. nañ ci ba sëmbax ci ba tooy ci xepp te duñ ci génn fekk faluñ ko. c' est vrai que nag. Euh, on a vu que des y en a des responsables yi nga xam ne ils ont bénéficié du pouvoir du président Macky Sall. Euh, heure bii mu waroon leen a fekk sur le terrain defuñ ko mais ñun. mais loolu tam dafay dafay dafay soulever des questions. parce que tey benno benno APR bu ngeen taxawee ngeen ne APR sax laa bu ngeen taxawee ngeen ne da ngeen jiital Amadou Ba mu doon seen candidat donc tey jii ñooñu ngay wax ñoo waroon nekk les premiers sur le terrain mais Amadou gis nañ ni depuis lors dafa mel ni dafa am ñoo xamante ne dañ ko woon ginnaaw. effectivement li nga wax ni mm-hmm. d'accord naa ci parfaitement. mais je dis bien. que ces responsables que tu parles. ñoom xam lu ñu doon def. ñëw rek pour pour pour pour defar ñoo doon wàcc le terrain ñoo doon liggéey li tax ñu doon gañe fépp ñu gagné le Sénégal c'est pas ces responsables là que vous dites et yi nga xam ne ñoo jël retrait doo ma ci wax kenn ka nga xam ne pesé na lu bëri Amadou Ba ñi nga xam ne ñoo doon faire gagner le président Macky Sall dans les douze ans yi ngénn nii douze années yi ngén nii ñëpp ñu ngi ci ginnaawam à quelques exceptions près et ces exceptions près là mënuñ tere Amadou Ba gagné incha allahu rabbi au vingt euh, au soir vingt quatre mars Amadou Ba dina dégg président de la République du Sénégal incha allah. te gëm nga loolu par rapport ak instant bi ni situation parce que là là là dañuy on sent que ni seen démarrage de campagne c'est tout timide. non c'est c'est juste mm. aussi on a vu une belle mobilisation au niveau de a à Keur Massar. aujourd'hui aussi ça sera pareil à Mbacké. et luñ gën a dem machine bi di gën a tàng. mobilisation mais démb démb démb waa PASTEF ñoo leen mbuur nag dañuy waxante dëgg rek. démb par rapport ak meeting bi waa PASTEF dañu leen mbuur carrément. waa PASTEF ñoom fan lañ doon defee seen seen meeting. ñu ngi woon parcelle. fan ci parcelle terrain ACAPES. terrain ACAPES <laughs> xanaa suivre ko. bon ñun football. Mhm. xam nañ ne terrain ACAPES n'est même pas réglementaire. pour pour masse pour masse football bu normal. terrain ACAPES normalement ku fay football waroo def onze onze. huit la ñu war a wala sept sept. terrain su ndaw la sa nga xam ne pratiquement moom ak seen plateau télé bi ñoo toll nga foofu. duy ko jël jël image yaa ñuy xas de. non non xasuma non xasuma c'est dama la wax terrain mhm. ACAPES. boo gisee li moo tax ñoom ñu yàpp terrain ACAPES. récemment yaa ngi quand il euh, appelait à des manifestations au niveau du terrain de Grand Yoff. Euh, yaa ngi ko est-ce Grand Yoff daan na mel noonu. daan na fees. si question donc man dama lay bàyyi nga déroulé. très objectivement ma laaj la rek. ndax xam terrain Grand Yoff bi ñu doon woote ndax daan na fees. yow xam nga ne daawul fees parce que tere Grand Yoff terrain bu normal la. mais dañuy dem ci terrain ba nga xam ne terrain bi nii la. fi mu nekk marché la. xaar rek fi mu nekk marché la. boo fa yekkee fukki kaar mu fees. ñu ñëw après jël caméra jël jël jël jël jël jël image de manière que affaire yi day concentré nga ne non yaa ma fichier électoral bi y' a sept six millions plus de six millions de votants nga dem ci terrain ba nga xam ne boo fa defee mille personnes mu fees c'est pas ça qui gagne des élections de 2012 à nos jours on n'a jamais perdu d' élection élection bu a dem ñoo ko gagné ñun xam nañ ni ñuy gagné élection du ci ay xam ngeen ni ngeen di gagné élection loolu tamit point d'interrogation la dinaa ñëwaat si point boobu noonu ma tourner un peu ci Abi Touré Abi euh, gis nañ ni dañ nekk euh, dans un contexte de forte tension entre opposants et pouvoir euh, te fa Fall gis nañ ni amul encrage territorial est-ce que lu ni mel mënul nekk ab frein par rapport ak pouvoir bi nga xamante ne ne moom lay wuttu ancrage territorial nan nga koy waxee base politique Parce bah, que Gisnani, il est de Saint-Louis, certes, mais au niveau de Saint-Louis, on a comme l'impression que ni, il faut bailler pour nous, il y a un acteur euh, politique, nous avons des scène base. saint mhm. Mais dès que Sénégal, moi, base. Mhm. nekkul politicien bi nga xamante ne danaan fii laa bokk lii mooy sama moomeel. moom mhm. Sénégal la moom. Sénégalais la Sénégal la bokk. te réew mi lay laaj. donc Sénégal fépp base la. PRP fépp foo dem ci région u Sénégal quarante cinq départements yi soo ñëwee nga ne ana ñu rep ana représentant wu PRP dina ne la mhm. maa ngi nii donc nous sommes représentés partout au Sénégal et dans la diaspora mhm. je pense que bu dee ancra ancrage donc amuñu GIFREM fépp mhm. foo dem ci diaspora bi foo foo dem ci Sénégal PRP am na fa représentativité oui am na fa représentant mais base politique bu dëgër boog laa bëgg a wax mais représentant boobu noonu mooy yor base bi. Hmm. loolu mooy base bi. parce que hmm. foo teg parti mu am coordonnateur muy région muy département. am na hmm. bureau am na ay militants. am na base. d'accord kon euh, mënees nañu jàpp ni euh, am na base politique bu dëgër au niveau de Saint-Louis. bien sûr dinañ ci xam dara incha allah au soir du 24 mars. au soir du 24 voilà ci noonu rek ñoo ma def euh, benn rebondissement mooy par rapport ak recours bi nga xamante ne ni waa PDS daal di nañ koy dugal tey jii nii ñoom ñu daal di ci ànd ak ñoo ñëwee di Front démocratique pour les élections inclusives Euh, ñu ne dañoo dugal ab record pour excès de pouvoir lu ni mel rek yéen ban xalaat ngeen ci am. Euh, xalaat buñ si am mooy euh, ils sont dans leur droit parce que bu la ko droit nit lu ko droit may da nga ko koy jox ñun waa PRP surtout le président Déthié c'est un républicain. Mhm. il respecte vraiment les droits et il lutte à que ñu respecter la constitution les lois la justice les règles les les les les règlements donc bu nekkee ne ñoom waa PDS loi moo leen permettre ñu def recours boobu noonu ils sont dans leur droit ñu def ko mais nag euh, juridiquement suñu ci amee avis mm-hmm. mooy que dañuy bàyyi conseil constitutionnel c'est mm-hmm. lui qui a le dernier mot parce que moom mooy le juge qui doit trancher mm-hmm. te tranché na donc euh, acte na date du 24 mars Euh, aligné wu si la prési la décision du président Macky Sall donc te décision conseil constitutionnel mooy la décision suprême et ça fait obligation mm-hmm. donc euh, je pense que ñun noonu la ñuy gisee ndax ñun ay républicains lañu encore une fois mm-hmm. te ci yoon rek la ñuy topp mm-hmm. voilà si yoon la ñuy topp kon euh, ma tourner rek un ci Abdou Khadre ñu revenir ak si point bi nga xam ne moom nga nekkoon ne nga yéen waa APR da ngeen xam nu ñuy gagner élection. c'est vrai loolu tamit ça mérite benn point d'interrogation. c'est-à-dire. Mm. parce que boo ma nee da ngeen xam nu ngeen di gagner élection. donc lan moo nekk ci ginnaaw. selon toi tu quoi. quand je dis que ñun dañoo xam ne ñu gagné élection. mooy maanaam yan stratégie ngeen fas yéene effectivement c'est la proximité pour pour élection c'est la proximité. Mm-hmm. Euh, avec la population. vous voyez je pense que euh, nit ñi doo jënd. Mm-hmm. nit ñi moomoo leen. Mm-hmm. xam nga nit ki nga dëkkal douze ans. ngeen nekk peut-être boo amee problème du la gis. bu koñ bi peut-être taawee du la gis. weeru koor jotee du gis sa suukaru koor ay see bi nekk ci koñ bi bu soxlaa mayo du yow yaay jënd peeru mayo jox ko femme yi buñ soxlaa du yow la ñuy xalaat kooku bu élection jotee boo ñëwee di leen wax voteel ma duñ la voteel parce que élec parce que politique d'abord avant tout c'est servir mais est-ce que servir boobu yéen a ngi servir seen askan yéen population bi dañ leen weddi de fi mu ne mais soo waxee noonu sax mhm. dafay mel ni l'électorat se euh, paye base wala mhm. les gens ils votent par intérêt. effectivement tu me nourris je vote pour toi. et, et cest dire da ngeen a bëgg a génne vote bi par intérêt c'est quoi l'intérêt je ne parle pas de l'intérêt pécuniaire mais quand mais loolu nga fi énuméré nit ki xam nit ki. Mm. fii mënoo fee jox nit ba jox ko amul. mais quand même yëg-yëg dafa am solo. fii ñu ki la fiy votel ku ne c'est parce que gis na ne exemple man sama koñ su ma fa demee dina wax na leen votel leen Amadou Ba. te man sama koñ amul dara lu mas a tàq ci koñ bi ma ñëw ne nañ leen ko bale amul lenn la nga xam ne à travers Amadou Ba ñu ngi koy gis ci man sama image mais su ma nee leen voté leen Amadou dañ naan kii daf ñoo yàpp mais vote par intérêt boobu est-ce que amul lu ko jiitu mooy maanaam teg programme boo xamante ne askan wi mm-hmm. mun nañ si sukkandikoo xam ni kii kat buñ ko votalee à travers programme bi dinañu jëriñ plutôt ko ay yenn intérêt crypto personnel effectivement programme mm-hmm. moom programme programme mooy lu gën a ndaw lu un candidat mën a am. Mm-hmm. parce que on a vu dans le passé. Un... mais ak i programme am. non non non dama lay expliquer. xam nga fii mm-hmm. programme laax de bu nekkee programme bu baax bu viable bu mën a yóbbu dëkk bi jëlee ko ci point bi yóbbu ko ci point bi man maa la ko wax. candidat yu bëri am nañ ko. malgré que nag j'ai vu des candidats yi nga xam ne li ñu def kenn xamul lu mu doon. mais le candidat Amadou Ba un programme viable. un programme qui permettra le Sénégal de se hisser vers l'émergence un programme ba nga xam ne tey buñ dina fi président Macky Sall bàyyi Sénégal nii dina ko jëlee fii ji yóbbu ko fu gën a sori loolu on n'en disconvient même pas mais au-delà de ce programme la on a besoin aussi d'être proche à la population mais lu ni mel lu ni lu ni mel euh, bu fekkoonte ne ni pare na pour def ko est-ce que dina xaar ba nekk candidat pour def ko. alors qu'il a été premier ministre il a été ministre des finances Amadou pour def la pour jëlee Sénégal benn point bi. yóbbu ko beneen point. tamit le Amadou Ba. dafa nekkoon sous le tutelle du président Macky Sall c'est le président Macky Sall qui avait un programme qui s'appelle le PSE. ce PSE là. a été exécuté à hauteur pratiquement de plus de soixante-dix pour cent. avec le PAP 1 non ay chiffres ay chiffres mais attendez mais dañuy jël yi ñu tegee ko. je pense que vous n'êtes pas né de la dernière pluie vous étiez vous étiez au Sénégal avant 2012. bien sûr vous savez très bien ce qui s'est passé dans ce pays avant 2012. il y avait des émeutes d'électricité il y avait des manques d'infrastructures il y avait manque d'université aujourd'hui quest que le président Macky Sall a fait sur sur sur ces sur ces euh, anciens anciennes doléances du pays. on n'avait pas assez d'électricité actuellement c'est une euh, c'est un euh, euh, vieil souvenir n'est-ce pas avec combien de kilomètres d'autoroute et de route avec combien de forages avec combien d'universités créées ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite suñu économie fan la ko président Macky Sall fekkoon fan la ko yóbbu xam nga tey ni naan ku ku nawul sa aawo du la may ñaareel ñun dañoo amoon aawo bu tuddoon 2012 2019 sénégalais yi bëgg may ñu ñaareel bu tudd deux mille dix neuf deux mille vingt quatre sénégale yi gën cee bëgg. bëgguñu si moom. ah <laughs> ñun sénégalais yi moom bëgguñu si franchement droit mais actuellement yaa ngi wax yaa ngi wax léegi par rapport ak euh, infrastructure yeeg yooyu noonu mais loolu lépp continuité la. on a vu que ni ay projet Wàdd la woon c' normal l' état continuité la Macky ñëw na mettre na ko en œuvre mais depuis 2012 tamit dañuy waxante dëgg rek yan yan programme yu concret yoo xamante ne Macky moom moo ko définir teg ko fi. d' accord état continuité la moom loolu nga wax. loolu la continuité la mais ça ne veut pas dire Sall. tout ce que Macky Sall a réalisé dans ce pays là amul lu ci Ablaye Wàdd bàyyi fii nii. c' est le président Macky Sall qui a mis ses projets qui a exécuté ces et les inauguré amul benn laax bu fi Macky Sall bàyyi Ablaye Wade bi mu fiy jógee en 2011 il nous disait que su ngeen joxee réew mi keneen en trois mois dootu fay salaire yaa ngi fi woon noonu ku mën ku fi bàyyiwul lu fay ay salaire trois mois di fi bàyyi programme bu liggéey stade Ablaye waat di nga fi bàyyi programme bu fi indi terre. mais tamit état bi nekkul loo xam ne population yi dañ koy lekk tamit parce que bu ñuy wax tey cherté de la vie la mën a gën a miser wu parce que tey jii ñii di yeewu fajar di dem wëri ji loo xamante moom lañuy ñuy jox seen njaboot moo leen gën a yitteel que stade bi dañuy waxante dëgg rek. d' accord mais xam li nga wax d' accord naa xam nga xam nga da nga ne stade duñ ko lekk. duñ ko lekk. mais on ne vit pas pour manger. gis nga lekk noonu. Mm. am na lu ko ëpp solo. les condition de vie des populations moo ëpp solo xam nga euh, dëkk chaque jour nga ngeen ñu xas nit ñi dëkk bi amul li dëkk. alors que loolu bu ñu ko bi moom doxul. maintenant mhm. d' accord dëkk bi doxul am nga ci droit. Mhm. man en ce qui ma concerne. xam naa ne le président Macky Sall bi mu ñëwee léegi. li mu fi fekkoon ci ay salaire ful na ko ñaar. le président Sall bi mu fi ñëwee léegi li mu fekkoon ci ay tali ful na ko ñett. le président Macky Sall bi mu fi ñëwee léegi li mu fekkoon ci électricité ful na ko ñeent. le président Macky bi mu fi ñëwee léegi li fi mu fekkoon Sénégal ci développement yi. ko juróom. loolu maanaam looy teg sa loxo la ñuy di ko teg amul lu ñuy créer man comme yow nous sommes des sénégalais bon teint fekke woon sénégalais bi Sénégal bi ñu fi fekkoon. da nga doon yor sa entreprise xëy courant coupé sept heures du nu lay ñëw doo liggéey. tey nga mën a xëy ak matériel yoo mën a yor lu mën a mën a naan courant. leer na la ne courant du coupé fii di nga liggéey sa liggéey comme il se doit di nga mën a xëyee seen Dakar Ndiaye bi añi jee Ziguinchor loolu le président Macky Sall moo fi indi donc ne me dis pas yooyu infrastructure yooyu noonu ki doon jóge Tëngéej te quatre heures de temps ci circulation bi tey mooy xëy laal verte bi à moins de trente mille il transport yi dafa cher. non même bu fekkee infrastructure dañ ko koy nangul tamit amélioré na un peu par rapport ak euh, circulation beeg yooyu noonu. Mm-hmm. mais ba tey njëg yi dafa cher. maa ngi dellu si maa ngi ñëwaat si yow parce que point boobu euh, c'est à débattre ma tourner un peu ci abi parce que sànq gis nañu mu ngi expliquer par rapport ak euh, élection yi pour wax ni ki nga xam ne bu nekkee sa koñ te amaloo ko njëriñ du voter pour yow maa ngi gis sax yaa ngi doon euh, réagir ma bàyyi la rek nga ñëwaat un peu si point boobu am na loo ci bëgg a wax. avocat bi ma déggee mu waxee ko c'est comme si que ne nit ki pour ma votel la il faut nga yor lenn loo xamante ne moom nga koy dundalee. ni ma comprendre man laay waxee ni ma déggee li nga wax parce que maa ngi jàkkaarloog yow ngay wax ma jàpp ne sénégalais yi mérité nañu beneen xoolin mérité nañu beneen respect politique lu noble la dama koy wax tout le temps c'est être au service de sa nation c'est c'est être au service de la cité cité bi nga nekk de ton environnement nga war a mën a am ay activités sociales yooyu développé ci sa fi nga nekk am ay économie ay ay activité économique yu ngay développé fi nga nekk donc dëkk kenn du ko jariñoo réew kenn du ko jariñoo da nga koy jariñ loolu mooy philosophie président Déthié Fall moo tax nit yi du dang leen di jox ñu lekk wala ñu naan fi mu nekk nii tey kenn mënatul woon nit ñi jox leen 2000 francs ak sandwich pour ñu feesal sa kaar mënatul nekk pour ñu voter gis nañu ñu ko fi doon def nit ñi dañuy encaisser seen xaalis te duñ leen voter léegi sénégalais yi ngëm-ngëm nañuy voter sénégale yi am nañu fu ñu bëgg a yegg te dañu am ay yaakaar yu ñu wékk ci ay nit yu leen fa mën a yóbbu ci ay programme yu leen fa mën a yóbbu donc dëgg nañuy xaar d'accord na président Macky Sall liggéey na il a obligation de travailler parce que loolu moo tax mu ñëw Abdoulaye Wade dafa bàyyi woon ay projet projet yooyu noonu sénégalais yi ñoo tax ni ñëpp ñëpp naan Abdoulaye Wade monsieur le président de la république Macky Sall yi moo tax mu doon dégg monsieur le président la république donc moom ay projet am c'était peut-être ay priorité moom ci moom yu mu dégagé mais beaucoup de Sénégalais du woon priorité ci ñoom et je te fais savoir que ne courant ba léegi day coupé mm-hmm. ba léegi man fi ma dëkk avant rek ba courant dafa coupé am naa sama benn euh, camarade de parti démb bi ñu jógee Mbour à deux heures du matin nee na nee na ba fajar bi muy tëdd courant wum ñëwul mu ma koy jooy si suba naan ma nelawuma courant ba léegi mu ngi coupé xëy na peut-être ñii ñu ngi koy yëg ñii yëguñu ko ay tali defar nañu d'accord mais nit yi ñi ngi feebar duñu ñu faju Philippe Senghor bi moo ñu gën a jege soorom bi ni nga gis ko ne ne la may ma 2000 am naa ordonnance wala sama ticket matul donc euh, pour man les besoins primaires des Sénégalais war nañ ci mën a gën a góor góor lu ñu xool naka nañuy dégager par rapport à Sénégalais yi lan moo leen di dundal dafa am solo te si boobu noonu sax euh, Déthié Fall gis naa ko mu àddu ci est-ce que mën nga ci revenir à tamit. Euh, oui oui il a programme euh, ñu tënk ko ci un Sénégal bon à vivre et beau Sénégal bon à mooy nga dëkk ci Sénégal bi nga xamante ne ku bëgg jàng dinga nga jàng ku feebar di nga fajoo ku xiif dinga lekk ku am sa sutura di ko lijjanti ci li ngay ñàkkal sa bopp kenn du tàllal kenn loxo dinañu. jël suuf bay ko mhm. industrialiser li ñuy bay andi fi autosuffisance alimentaire ak autosuffisance de l'emploi mhm. dinañu jox jeunes yi emploi loolu programme am la te ay axe la yoo xamante ne da ko jël mu nekk ay axe yu faar mhm. yoo xamante ne yooyu noonu la nar a ñëw commencé ko wut sénégalais yépp ku nekk mu tàllal la loxo wut sa xam-xam ut sa ut sa ut sa volonté ñu ànd ak ñëpp ñu liggéey ci loolu noonu parce que bu bayee suñu suuf Sénégal ñaata hectare la yoo xamante ne kenn exploité wu ko bu ñu bayee suñuy suuf am autosuffisance dinañu industrialiser nañ créer emploi donc dinañu relever plateau médical yi côté santé bi ngay wax mhm. parce que tamit ubbi nañu hôpital ubbi nañ centre de santé te aussi logistique bi suivrul loolu problème la wala nga ñëw nga ubbi hôpital ubbi dispensaire centre de santé équipé ko et tout alors que nit ki pour mu dugg faju il faut que mu jënd ticket des fois da ngay dem sax maternité dañ lay wax nga jënd gant ak madaar balaa te accouchement xam nga nit ki du toog naan sama ordonnance ñëwagul damay xaar donc pour man prise en charge yi dañoo nekk ay des choses yoo xam ne yu prioritaire la mhm. nit ki bu feebaree ñëw nañ ko gestu faj ko donc tout ça c'est des politiques ak Euh, euh, benn volonté de financement ou bien de développer ce secteur boo xamante ne moom la war a am mm-hmm. te président Déthié priorité am yëpp mooy sénégalais bi vivre dignement mm-hmm. mais lu est-ce que réaliser ko mise en œuvre programme bi est-ce que ça sera facile parce que gis nañ ni euh, le président Déthié Fall il a fait vingt ans d'opposition vingt ans d'opposition certes dafa mel ni pour une première fois mu ngi doog a ber daara demal boppam ndax lu ci ëpp da doon nekk ci ginnaaw nit. non du lu ci ëpp da nekk ci ginnaaw mm. nit. bi mu commencé nekk ci politique ba léegi benn nit la doon àndal. Idrissa Seck. voilà bi mu demee ba euh, ñoom ñaar mënatuñu dem. Mm-hmm. moom dafa nekk ber daaraam comme li nga mm-hmm. wax. Mm-hmm. or parti boppam. donc benn nit boobu la mës a àndal. politique. après si la def coalition ak waa Yewwi. deful dafa teg parti woom. partem waaw parce que Yewwi coalition ay parti ay parti la woon voilà boobu fekk na moom teg na parti woom di demal boppam. Mhm. dëcc bootuwul ci ginnaaw kenn. Mhm. voilà. d' accord gis nañ ni ci élection locale yi passé sax euh, Déthié itinéraire yeewi bi daanaka moom moo ko bindoon concernant les trent neuf départements mooy sànq day revenir aat si question bi ma doon euh, soulever mooy que ni Déthié ñu bëri dañ koo umpale Déthié waaw moom moom waaw moo yoroon itinéraire euh, hmm. yeewi askan wi Déthié moom moo nekkoon mën nañ ne l'architecte de hmm. yeewi Mm-hmm. donc euh, nekk fa di fa doxal lim ak ay euh, collaborateur am yu mu fa nekkoon looloon parce que c'était une grande coalition ñu ci bokkoon ñëpp mën ñun ñëpp xam nañ leen mm-hmm. donc mu yor loolu noonu di ci doxal politiquement ak engagement am aussi li taxoon ñu teg Yewwi Askan Wi mosu si mm-hmm. fay donc man su man su nekkee ne da ngay dañuy wax ne xam ñu bëri xamuñu ko moom daf may jaaxal parce que man mii rek sama oto dama ci tax benn affaire boo xam ne mais bu ma romb kenn du ma ne kii kan la rek ñaar dece paal xam ji mais maanaam ci biir xam-xam bi ah, savoir ok connaissance bi xam-xamam bi mm-hmm. mais je pense que à travers li ngay wax nii mm-hmm. ñëpp ñu bëri ñu ko xamul woon dem nañu découvrir ko mm-hmm. bi ñu tegee programme politique wu Euh, coalition Déthié Fall 2024 te Déthié moom moo ko def avant de mettre en place une coalition mm-hmm. avec les cadres du parti mm-hmm. ñu jël ko di jël liggéey di ko togg ak moom ba mu ñor mm-hmm. ñu ñëw jël ko teg bi alliance yi ñëwee ñu jël leen dugal leen ci biir yëpp mu nekk programme bi teg ko sénégalais yu bëri biñ ko gisee jéem nañu dem xool kan mooy Déthié Fall kan moo war a mën a toggul ci nii xam nañ ne boroom xam-xam la xam nañ ne ku bëgg Sénégal la xam nañ ne aussi tamit ku mën a defar Sénégal voilà ma tourné waat euh, Abdou ci yow <laughs> Abdou Khadre. mais j'aimerais rebondir ci li mu wax quoi. ci affaire Déthié parce que instinct ñaari yoon quoi mm-hmm. bëri dañ ko umpale. waay cest à mais ñoom à un moment dañoo jëloon ñoom seeni seeni compétence ñu jël ko dem di. Mm-hmm. dem nekk ay bëkk néegu beneen leader comme ñoom. Mm-hmm. au lieu yow nga dox sa nga defal sa bopp sa yoonu bopp. nga dem topp ku nekk ci yoonam. di ko xaalal yoonam. mais da ngay préciser c'était Ousmane Sonko ko non préciser il faut préciser parce que dañ koy xam nga ko c'est excellent. Mhm. noonu la demee. Mhm. je ne peux pas concevoir quelqu'un qui a un parcours comme Déthié Fall. nga jaar PDS jaar jaar jaar. mosut jaar PDS waaw d'accord. Mhm. nga jaar nga jaar ci loxoy Idrissa Seck. ñëpp xam xam-xam bi nekk ci nit kooku noonu. nga jaar ci moom nekk lieutenant am. ba xëy na da ngay ber sa daara je pense que kooku bu une fois ber nga sa daara. waratoo xal ci ndodd kenn yow kañ instant bi yaa war a bootaate mais kenn dootul waru laa boot mais nga jël sa lépp jël da topp benn nit di ko xàllal yoon di ko xàllal yoon moo leen arrivé lii nii comme li nga wax ni c'est vrai ah mm-hmm. il il va falloir ñoom ñuy jël ay affiches di ko taf seen oto yi pour ñu xam ne Déthié Fall nga àndal mais sinon c'est ça parce que da nga jël sa doole jël sa énergie jël sa xam-xam yépp mettre ko à la disposition de quelqu'un ba nga xam ne amul jaar-jaar amul parcours tojul fenn nga yere na nga fexe yow ba kooku tey nekk sa kaw tey peut du numéro deux kooku sax tey instant bi moo la ëpp doole ci réew mi alors que loolu. mënoon nañu ko non ah, c'est effectivement ça. Abdou Khadre nag. Mm-hmm. tu ignores beaucoup de choses. beaucoup de choses tu l'ignores. Mm-hmm. Déthié mësta bootu ci ginnaaw kenn. la preuve ñi bootu ñëpp gis nañu ñuy wut candidat di bootu ji. Déthié il est candidat il s'assume te il s'assume dafa bokkoon ak Ousmane Sonko yeewi askan wi Ousmane Sonko di xaritam di nawleem juste un mouvement de soutien à Ousmane Sonko yeewi n'était rien qu'un mouvement de dama la déglu dama la déglu nga daaneel parce que yow da nga ignoré non non da nga ignoré da nga ignoré engagement ah, ci par da nga doon brosser foofu rek da nga doon brosser li nga doon mais léegi je peux poursuivre j'espère non non bàyyi bàyyi moom mu def rebondissement mu ñëwaat un peu parce que dama ko posé waat. ci biir temps de parole ba mu wax temps de parole ba may jël man man si laa. <laughs> non mais mais si li mu doon wax. si li mu wax parce que hmm. man maa waroon wax. léegi nag dama woon dama doon. dama la ko ñaan rek avant may ñëwaat si yow juste parce que dama bëgg moom tam mu indi des éclaircissements si par rapport ak xàll yoon la ñuy wax après ñu dellu si waat temps de parole bi dama la ko ñaan rek si xàll yoon bi parce que dafa ne yéen seen leader dafa nekk di xàllil yoon non waxuma dafa nekk di dafa nekkoon dañoo nekkoon da ngeen nekkoon yoon euh, beneen homme politique ba tey jii moo leen jural mais yéen askan wi amul chef Mm-hmm. ñoom ñëpp ay leader nañ coalition de parti. coalition de parti la. Mm-hmm. kenn moomul yeewu askan bi kenn du leaderu yeewi askan bi ñoom ñooy leader yi bañ na ba dafa am conférence de leaders ñoom ña fa bokk. Déthié mësta bootu ci ginnaaw kenn Déthié du kuy bootu. mais Ousmane Sonko nekk dañ ko doon gis assez souvent muy génn di def ay euh, prise de position par rapport a la ah, personne de Ousmane Sonko tamit waaw waaw mm-hmm. solidarité. Déthié ku ko xam xam ne carrément nitu dëgg la. xeexkatu dëgg la nga bëgg ko nga bañ ko nga ànd ak moom nga bañ a ànd ak moom fu dëgg féetee foofu lay féete mm-hmm. et que am na pour taxaw jël position soutenir son frère Ousmane Sonko. Mm-hmm. bu ñu gisee ne kat kii liñ koy teg du noonu wala fi koy jaarale du noonu wala liñ ko yan diis na dina taxaw dina ko fustiger dina ne lii kat du normalul parce que buñ ko gis nag lu dul dëgg danga naan lii du dëgg mais nag du ay dañoo jiital diw di ko xaalal wala dafa am xam-xam wala yenn jugement de valeur yi encore une fois bu ko bàyyiwul dañuy tardeel mm-hmm. il faut qu'on voit grand il faut que ñuy reconnaître nit ñi seen tolluwaay mm-hmm. il faut que aussi tamit ñuy reconnaître nit yi seen ay effort ak seen ay euh, seen seen ay engagement ñu koy mën di ko dissocier mais ñuy bañ di ko gis di ko yàq. di ko yàq voilà c'était bien de préciser Abdou Khadre ñu continuer waat rek. <laughs> par rapport à... Euh, <laughs> donc c'était juste ça. Mhm. aussi il a dit xam nga dama bëgg leeral lool quoi. Mhm. j'ai pas dit que nit ñi dañ leen di jënd waxuma lool dama ne. Mhm. boo dëkkee ci koñ amoo fa njëriñ. initié woo ay journée de set setal initié woo euh, nu ñuy def ba quartier bi am sécurité yooyu yëpp initié woo ci dara. jeunesse jeunesse bi bu ASC bi ci koñ bi ja sa yoon nekku ci femme yi ci koñ bi sa yoon nekku ci école bu tëjee euh, les cours de renforcement pour xale yi sa yoon nekku ci maintenant boo xëyee xëy jóge Dakar soo sa costume bu rafet ñëw ne damaa bëgg ngeen votel bi mais gars yi duñ la faale loolu laa wax xam nga pour nga euh, moom moom moo ko wax sànq dane mhm. la politique d'abord il faut il faut se mettre au service euh, de la cité nest pas mhm. mais au mhm. service de la cité c'est quoi c'est jàppale waa cité bi c'est nga jege te nga nga nga nga mettre yow sa sa sa sa xam-xam sa prestige yëpp nga mettre ko à leur disposition koñ bi euh, gis nga ne temps yi insécurité mi ngi ciy ràññee nga woote koñ bi jeunes yi ñu waxtaan comment faire pour sécuriser notre quartier comment faire pour sécuriser notre ville comment faire pour. mais yéen initié woon ngeen fi ay clinique day de ba léegi affaire yi mujjul continuer de. waaw d'accord ñaari yoon ñetti yoon ngeen ko def. daal di bàyyi très bien c'est ça le mm-hmm. souci. xam la moo tax mënta dem. Mm-hmm. parce que yéen nga ma wax. quand le président Macky Sall initiait le cleaning day c'était pour que sénégalais yëpp impliqué wu ci. Mm. chaque samedi. à l'image de leur leader. non non attendez <laughs> samedi. Mm-hmm. sénégalais bu nekk. chaque samedi chaque chaque samedi première samedi bu chaque mois. Mm-hmm. sénégalais bu nekk xëy xam na tey cleaning day dafa am dañuy bale suñu buntu kër yi dañuy bale suñu koñ bi dañuy gay bale su bale suñu commune bi département bi fekk région bi ça c' est comme ça boo demee boo demee tey jii ne ay Rwanda loolu moo fa am tey boo demee au au Japon exemple dama lay jox exemple Japon nit un japonais bu jëlee congé day dem ci mairie mm-hmm. bindu fa un mois boobu muy jël congé mairie bi comme agent fii agent UCG liy def la nuit nga jóg bale nga dem engagé ci volontairement

Kër Ndiaye Lo di ko mhm. fekk fii ni stade de l'amitié te j'étais pas avec lui. mais sénégalais bu nekk da nga si doon gis sa bopp. donc parce que mais bul wax ne. APR la. wala naa nga sénégalais yi ñu ngi doon ñëw. di leen fekk si lu baax. moom il a fallu mu jóge fan Kër Ndiaye Lo pour ñëw ba. am ci ñëw donc mhm. na bi mu ko woowee du ma ko fàtte Macky Sall xam lu mu wax leader yi bu kenn ñëw sama kër. ku xëy commencé sa buntu kër maanaam jarul ngay xëyee kër Ndiaro di ñëw habitude léegi ku ñëw non non non non non non non moom laa lay expliquer xool logistique man damay génn man damay génn sama kër damay génn sama kër sama sama sama kër am na bale am na ratu sama ratu kër ak sama bale kër non mais pour bale mooy li muy wax rek bu fekkee logistique bi dañ ko bloqué ci benn endroit logistique boobu laa lay wax logistique boobu laa lay wax soyons juste euh, un peu objectif si nga man dama bëgg investissement citoyen boo koy def warul xaar ku lay jox dara boo xëyee dama jënd sa masque bu cent franc takk sol say basket sol sa tubéy yaa ngi dégg attendez rek non no loolu ñu Sénégal Sénégalais bu xëy di nga bale sa kër xanaa li ngay balee sa biir kër mën naa bale sa buntu kër léegi baleel sa buntu kër nga yem fa keneen ki taxaloo yow bale mais loolu loolu chaque jour dañ koy def loolu ah? chaque jour dañ koy def sa buntu kër balee sa biir léegi léegi lan moo tax euh, ngay romb ci mbedd waaw dafa waaw waaw waaw effectivement mun naa la parce que. mais l' état avait dégagé un budget pour ça pour ça wala kër gu ne boo génnee mm. après dina dina permettre ngeen am force bu bu dem foofu noonu yëpp mais mais bon loolu loolu lu ma doon brosser rek la. Mm-hmm. mais dama dama bëggoon ñëw ci. kii dafa wax mu ne euh, politique dafa ànd ak feebar faju ànd ak. Euh, oui si côté santé bi surtout doon na loo côté santé bi man mm-hmm. de ma part personnelle. Mm-hmm. de 1960 à nos jours. Mhm. li fi président Macky Sall tabax ci ay hôpitaux président mus ko tabax su ma juumee nee ma président bii la mhm. boo ci xamee benn président nee ma diw la rien que le président Macky Sall a construit six hôpitaux de niveau de niveau trois mhm. hôpital Kaffrine ci la bokk. mais day non attendez rek dañuy annoncé de niveau trois déglu rek mais day un mois après matériel bi dootuñu ko gisati wala benn sénégalais feebar dem si hôpital bi am problème faju yow mas ngaa dem ci hôpitaux yi benn yow journaliste yow s'il te plaît dama lay. Hmm. objectivement hôpitaux yooyu noonu yu bees yooyu mas nga cee dem benn. dem naa ci. fan. Mhm. boo ci dem bu bu bu kii bi bu géejawaay bi. non géejawaay du boo bokk ci yu bees géejawaay Ablaye moo ko tabax. Hmm. Macky Sall du ko mais dalal jàmm. non non non ma damay bañ. non non damay bañ non non waxuma loolu de damay bañ. ñu génn damay bañ ñu génn ci cadre. looloo tax du ñu avancé du ñu développé. non non je lii Abdoulaye Wade ko moom lii Macky Sall ko moom lii kii ko moom non. mais jeune non abi non attendez non de Macky Sall Abdoulaye parce que sénégalais yi ñoo fay dem faju ji dalal jàmm bu ko Abdoulaye Wade tabaxee bàyyi ko fa Macky Sall bu ñëwee dafa war a def en sorte que ak équipe am bi nga xam ne ñooy gérer la santé des sénégalais mu continuer nit yi di mën di feebar di dem di faju ji nit ñi di bala man pour man bala ñuy tabax dix hôpitaux vingt hôpitaux ñu am deux yoo xam ne plateau bi dafay dafay relever nit day feebar nit day feebar Sénégal feebaree Saint-Louis ñu yóbbu ko Louga pour rajo dama ne le président Macky Sall dans sa magistère. non attendez se poser nekkul ni mooy maanaam non attendez après après après après après daal koy équipé tamit te suite tamit loolu daan la ci toll. donc revenir si revenir man. li may li ma dafa yomb. nga la dama ne la de 2012 à le président Macky Sall fi tabax ci hôpitaux yu bees. Mhm. amul benn président bu ko mas a tabax seen ma weddi kii du ma weddi dama ne. le président Macky Sall moo fi tabax six hôpitaux yu fulu. nga xam ne boo bëggee mën naa limal benn par benn des hôpitaux de dafa am ay yi nga xam ne dañuy wër di yàq der li ñuy wax. non du du parce que li ma la. parce que médias yi lu ñu wax ko teg fu leer dañuy dem sur le terrain. li nga xam ne ñoo ko am indi ko. teg ko man kenn waxu Mm-hmm. hôpital bu Sédhiou. Mm-hmm. dem naa sama tànk bi ba ca biir. Mm-hmm. hôpitalu Touba bi sama tànk bi dugg naa ba ca biir. hôpitalu Kaffrine bi ko président Macky Sall di inauguré ñoo ànd dem naa. yaa ngi dégg hôpital bu kii bu Kédougou dem naa fa. hôpital bu Tivaouane bii léegi pare. n'est-ce man li ma lay wax kenn waxuma ma tey jii man j'aurais préféré en tant que journaliste nga xëy. jëlal sa benn caméra jël sa micro nga dugg ci biir hôpitaux yi nga def enquête mais tey xamal laay bañ. vous avez les moyens. non non non mais gis nga attendez mais attendez dans la vie. dama ne à Touba boo daan dem principal bi principal. da nga fa daan fekk am fa yi per nit ñi nga xam ne dañ leen doon jëlee Touba. di leen di di évacuer léegi Touba amatul évacuation sanitaire. mais seen loolu attendez. parce que tamit nit dëkk ba dëkk di ko yóbbu pour. évacuation wax très bien loolu laa bëgg loolu laa bëgg ne avancement am na parce que gox yi tabax nañ fa ay ay ay hôpitaux waaw mais la question à se poser lan moo tax prise en charge bi da ngay dem si hôpital des fois nit ñëw accidenté wala feebar gravement malade ñu war la jël en charge la gestion la gestion des hôpitaux kan moo ko yor la gestion des hôpitaux kan moo ko yor ah damay laaj damay laaj chaque Sénégal bi dafa am lu ñuy wax un conseil d' administration. Mhm. conseil d' boobu le conseil départemental moo koy présider da ciy bokk. maintenant exemple un sage-femme bu jël ay bébé yu matul dugal leen ci benn kubéer. donc mhm. fee di snap wala muy kii ba euh, courant coupé wala mu am court-circuit foofu tàkk. Mhm. léegi c' quoi la responsabilité sage-femme ba nga xam ne moo ay gàtt foofu. du jëndewul le que diggante pour surtout ba tàkk ba càkk non non ba pare moom mu ngi dugalaat mu ngi renforcer état parce que mënoo jël hôpital def fa corps médical am négligence bu toll na ngay bàyyi sage-femme bu war a ay bébé mu am la l'attitude toog yor téléphone am di snap ba fàtte bébé yi ñuy lakk. yow tey fa ngay liggéey boo xëyee sa supérieur ñëwul jongoru la taxaw di xool li ngay liggéey sincèrement man mii fa liggéey bi sa benn supérieur duggul fii di la xool parce que il pense que tu fais ton boulot comme il se doit mais boo paree. waaw waaw réunion de débriefing boobu. réunion de débriefing boobu réunion de débriefing mais dama bul bul bul tourner débat bi feneen boo xamante ne ne xamal laay bañ xamal laay bañ côté santé bu dee bëgg ngeen di gis dëgg santé da ngeen si lajj ak doole loolu moom da nga koy nangu bu la neexee nga wax ci infrastructure mun lañ leen ngeen ci bu baax a baax a baax bu lajj si santé am ngeen datu Sénégal fu mu toll fi mu ne nii ak fan lañ ko bàyyi woon fan lañ ko bàyyi woon ah yow laa laaj yow mi koy yow di ma wax fi ñu ko bàyyi woon xanaa on n'avait pas 2500 milliards de dettes. waaw Abdoulaye Wade di dem. waaw waaw léegi léegi. waaw xam nga xam nga ce que vous ne comprenez pas mooy lan. mooy Sénégal kii ñu ne. kii États-Unis ki nga xam ne mën nañoo boot di daw. moo ëpp def France mais mais moo mais non écoutez priorité non écoutez dama ne. dama ne États-Unis ku feebar faju. buy avancé dëkk buy avancé dama lay wax bii nga xamante ne barki démboo Njaay mook Sénégal a tolloo situation tey boo demee Maroc doon ñoo ñuy jox ñu lekk Sénégal situation parce que géographiquement sa bokkul deuxièmement mooy Maroc dañoo nekk ñoom nekk ko ci di dox Sénégal non dafa ndànk rek sax royaume bi mais si côté développement la côté c'est vrai le président mais mais attends la ëppalee Sénégal lan la am lu Sénégal amul. bari na bon pas lu am lu amul mais lu mu am lu Sénégal yéex a. mais mais tey si le Maroc. ou bien Dubaï. ils ont su se faire en vingt ans lan mooy problème mu Sénégal. moo xam mooy problème c'est quoi lan mooy problème Maroc dafa am. Euh, euh, tourisme bu normal. bu baax mais Sénégal am na tourisme. ah attendez Sénégal am na tourisme mais li ci Macky Sall li ci président Macky Sall def. bu fekkoon ne non non non bul soo site d' abord nga xool nga xool est ce que est ce que site yooyu nga am est ce que mën na attirer tey le touriste. mais ministre la jëriñ doomu bàyyi ma ñëw. da nga bàyyi ma ñëw da nga bàyyi bi fi Ablaye Wade di jóge. Mhm. dafay bàyyi un tourisme bu dee à terre. man je suis de laa dëkk. Mhm. suñ géej gi. avancé woon na de plus de cinquante mètres ci biir ëpp ci biir hôtel yi man mën naa laa limal. cinq hôtels avancement de la mer moom c'est partout dans le monde. non je ne parle pas mm-hmm. très bien c'est partout dans le monde. Mm-hmm. effectivement le président Macky Sall moo ñëwaat. doon Petite Côte. Mm-hmm. président Macky Sall fait reculer la côte à trente mètres. xam nga avancé lañ doon le président Macky Sall moo ko reculer. tey xamoon naa ay hôtels yi nga xam ne. géej gi da koo nangu ba seeni ba seeni boroom dem ñibbi ba fi xottu hôtel noonu boo fi rombee ab benn genre kii ngay nga fay fekk ay bâtiment kese tey jii nii hôtel yooyu am na ay nit yu dem jëndaat ko ba commencé koo réfectionner pour pour tabaxaat ko ay hôtel yu gën a kawe ay cinq étoiles pour que tourisme Sénégal gën a dox te le président Macky Sall qui a tout fait maintenant bu fekkoon ne à l'époque vision bi nga xam ne Mohamed Sis amoon na ko euh, Ablaye Wade amoon na ko ci tourisme fexe ba dëkk bi suñ suñ suñ suñ produit di avancé mu fexe mu ralentir ci affaire yi arrière fexe ba tourisme local bi nga xam ne le président Macky Sall tey développé na développé na ko. nit ñi di jóge Dakar di dem ay Fatala di dem dans les zones suñ Sine Saloum di dem à euh, Mbour Saly Ngaparou Somone di ko def c'est parce que y a une politique tourisme local ba nga xam ne le président Macky Sall moo ko instauré dans ce pays. à l'époque boo demoon boo demoon Mbour man Mbour laa def boo demoon Saly wala Ngaparou instant bii nga xam ne saison bi nga waa tëj tubaab kese nga fay fekk. tey da ngay gis un père de famille à la fin du mois il prend sa famille mu ñëw à Mbour. parce que éveil de conscience dafa am par rapport à la population xam nga 2000 mm. instant boobu noonu mën naa ne jeunes jeunes yi fi nekkoon. ils n'étaient pas peut-être assez grands ou bien assez matures pour doxalee noonu. tey boo nee boo nee vous dites que pas matures.

Non, qui, non, qui, ce qui vous qui me dites, c'est vous. Si, quand de, de conscience, Parce que plus on avance, plus on avance, plus on avance dans la plus on devient plus conscient, tu Donc, tey boo nee Wade maanaam vision bi nga xam ni Mohamed amoon na ko moom amu ko man point boobu dama si d'accord parce que Wade il a toujours été visionnaire il a toujours été visionnaire ner kay da nga bëgg a défendre seen leader mais dinaa ñëwaat foofu noonu ak yow ma tourner voilà Abi gis nañ ni mu ngi wax ci tourisme local bi nga xamante ne nee na ñoom seen euh, leader Macky Sall moom moo ko sukkali parce que gis nañ ni entre 2000 ba 2012 euh, tourisme local boobu dafa dee woon carrément ba am na des tubaab yoo xamante ne moom la expliqué ñoo fa woon dañoo mujjee abandonné seeni hôtel dem mais man nag dama doon xalaat ne bi ñuy récupérer waat di delloo géej gi mhm. waa langue de barbarie bu Saint-Louis depuis presque six ans mhm. ñu ngi jooy avancée de la mer am na ay village entier yoo xamante ne géej gi lekk na ko ñoom dañuy réclamer benn digue de barrage benn mur pour mhm. mu téye géej gi da leen di fekk ba seen biir kër yi pour man population bi moom moo njëkk hôtel yi beneen bi mooy effectivement. une partie de la population de Saint-Louis sax si géej gi lañ dëkk. si biir géej gi. Mm-hmm. dañ leen a déloger yóbbu leen feneen ndax géej gi moo nangu seen kër yëpp. donc man dama ni effectivement euh, tourisme local léegi sénégal yi dañ ko gën a adopté. Mm-hmm. ñenn ñi mën nañ ko adopté parce que bu njëkk li nga daan mën a dajale ba yóbbu sa njaboot bitim réew. Mm-hmm. nekkatu fi. dund bi gën na cher. jàng gën na cher. location gën na cher feebar faju gën a metti Mm-hmm. donc mënoo si boole di épargne lu lay yóbbu vacances bitim réew. billet avion ak réservation d'hôtel mm-hmm. donc lii gën a simple mooy nga jël sa oto def ci carburant wër sa biir réew Sénégal pays bu atractif la mm-hmm. bien que le nom de Sénégal rek nit yi dañuy bëgg ñëw découvrir ko donc effectivement buñ ko avancé développé ko tourisme local bi nit ñi ñun ñu koy dund man bi may nekk xale di dem ay euh, parc gëmbal di ànd ak sama papa di dem ay réserve de Bandia boobu Macky nekk gul président de la République donc ça dépend si orientation yi lii amoon na fi amoon na fi léegi nag dafa gën a am parce que ñun ñuy parent yi ñu conscient woon ci jël sa njaboot ànd ak moom dem vacance wala dem lii wala def lii ak bu njëkk peut-être mën nañ ne loolu moo wute ci li ngeen di werante yéen ñaar mooy jeunesse bu ki naan la conscient na ak inconscient léegi ñun dañ koy gën a def mhm. ba pare tamit dafa am muy internet. exactement tey jii nii su ma xoolee gis ne Fatou mi dem na Saly man tamit damay bëgg prochain weekend ma dem. dem na Fatala dama koy bëgg dem découvrir parce que sama réew la dem nañ Sine Saalum neex na rafet na ñu publier ko ci réseau sociaux yi dama koy bëgg a dem. donc pour man politique bi pour attirer touristes yi ñu ñëw Sénégal lu ñu war a gën a def la. Mm-hmm. développer le tourisme local. mais aussi tourisme local mënoo ko développer te acteur de développement local yi yi nga xamante ne ay entrepreneurs nañ ñu impliqué mmh. directement ñooñu ñu mën a am indépendance pour mën a ubbi yooyu ba yooyu vulgariser boobu yoon mmh. parce que sinon ay étrangers comme il dit ñoom ñooy ñëw ñooy jënd hôtel yi ñooy yor chaîne de restauration yi ñoom ñooy gérer tourisme bi mhm. donc bien vrai que ne dina nekk ci suñu réew mais ñun duñ ci am benn dogal duñ ci am benn loxo voilà ma dikkaat ak yow euh, ci euh, bon xam naa instant bi waxtu bi sax mu ngi ñuy xaw a xooj un peu mhm. mais ñu dikkaat ci question bi gis nañ ni euh, Déthié Fall lii président Macky Sall dissoudre gouvernement bi mooy dernière dissolution bi mu amal ci gouvernement moom daal dina génn wax ni dafay euh, sàkku ci njiital réew mi mu nommé ab euh, ministre de l'intérieur bu consensuel est-ce que tey jii nii euh, Matar Cissé bi mu teg ko ministre de l'intérieur dal na seen xel du woon sax pour wàllu lu dal xel wala lu mm. dalul xel mais pour luy jaarale yoon élection yi luy jaarale la yoon élection yi luy indi apaisement social la loo xamante ne au moins sénégalais yi dinañu dal ndax dafa am rebondissement yu bari yu am ci élection yi diggante troisième mandat dina am ak du am mhm. parrainage dinaa jàll duma jàll fichier baax na baaxul ñu ñëw mu abrogé loi bi war a yóbbu nit ñu ñu dem élection ñu ne reporté nañ ko donc y a eu de tension que président de ci préoccupation yi si ëpp mooy apaisement am d'abord mhm. donc demandé ko à que mu teg un ministre de l' intérieur consensuel. Mhm. maintenant Matar Cissé li Sénégalais yi di xaar ci moom mooy mu doxal yoon def dëgg ñu dem ci élection yu libre transparent au soir du 24 mars ki gagné ñu xam ne gagné na Macky le 2 il rend le tablier. Eh, Matar Cissé moom ñëpp xam nañ ni pro Macky la seen xel dal na ci organisation élection yi. l'essentiel la organisation yi lu may wax rek. Mhm. nañu def li ñu war a def. nañu organiser des élections transparentes des élections libres des élections yoo xamante ne du am benn sikki sàkk mm. te fi mu ne nii Sénégal mënatuñu fi nekk di njuuj njaaj nit ñi ci élection bi kii kii la àndal kii kii wëg lii wala dinañ falsifier quoi que ce soit mm-hmm. parce que l'opposition elle est vigilante et elle reste debout mm-hmm. voilà Abdou Khad seen euh, leader Amadou Ba gis nañ ni bon fan yi moom gars yi dar nañ ko torop ak ay tiir ku ne la ñuy génnee di ko boobu lan moo waral lu ni mel xam waaw boo féetee ginnaaw kenn du la corner kenn du la def dara boo yaay nekk ci kanam parce que yaay jeune ci ginnaaw dañu bëgg a ñëw ci kanam c'est normal ñu klaxonné mais mu problème l'essentiel mooy Amadou Ba le Sénégal actuel que nous sommes mm-hmm. le meilleur profil mm-hmm. Mm-hmm. parcours bu nekkee ci jàng dix neuf candidats yi ñu constitution conseil constitutionnel tegal moo ci sutum njàng bu dee ci jaar-jaar moo ci suut jaar-jaar bu dee ci expérience état Mhm. moo ci sut expérience état su fekkee ci yar moo ci gën a yaru bu nekkee ci bëgg réew mi aussi doowu ma ne am na kenn ci ñoom ko gën a bëgg réew mi donc d'où l'importance de voter le candidat Amadou Ba te xam naa ne sénégalais yi dofuñ dina jàpp dans le dans un passé récent mhm. ay nit jóg nañ fi di leen di leen jaay ay illusion bañ dem di fal fi ay maire yu xamul mhm. fal fi euh, une liste suppléante à l'Assemblée nationale. ay maire yu ñu xamul xam nga ko yow ci dëkk bi nga dëkk. <laughs> bari na ñu fi toog tey jii naan rëccu nañ liñ doon falee suñ maire parce que biñ koy fal xamuñ ko woon diw fi jaaroon nañu diw ñu dans dans l'histoire politique du ah. Sénégal mi fi doog am. maintenant. n'est-ce pas. ne maintenant. fu ñuy doxee ñu xëy. ñu xëyaat tamit même nit ñooñu même nit ñooñu noonu def benn coalition àndaat seen biir. indil ñu coalition Yewwi rek. indil ñu benn liste suppléante ba nga xam ne tey. liste boobu mooy dem assemblée nationale di yëg ci kaw table di damm suñuy micro. ñooy dem assemblée nationale di fa këpp di fa këpp ay ay ay kees di daw ak moom. di yooyu noonu liste liste suppléante yooyu. ñooy dem tey ci assemblée nationale. di fa dóor jigéen ba muy waaj a avorter. ba tey wësinagul. n'est-ce pas donc à chaque fois sénégalais dañuy dem ba ci kanam doog a rëccu. maintenant c'est le tey. ñu xool nit ñi regarder les yeux dans les yeux xam réellement ñi leen di nit ñi ki fii ku la gëmloo naan la sàmbaay paate paatey demba day naxe gis na un les élections présidentielles c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple maintenant quand quelqu'un vient te dire il faut voter par procuration diw ba nga ne ma naa man la voté la diw mais kooku nekkul ci lu dul nax la ak ñàkk bëgg Sénégal mm-hmm. ñàkk bëgg Sénégal weesuwul ci tey pour valoriser un candida il faut nga dem gëmloo Sénégalais ne Moussa mii kat mooy Demba pour Demba nit Sénégalais yi mën koo voter loolu ay caaxaan la pour Sénégalais yi au lieu ñuy xool Demba xam ne kii mooy Demba hmm. dañuy xool Demba bi gis ci moom Moussa hmm. mais c'est quoi ça ñun ci ban dëkk lañ ne dëkk ba nga xam ne tey dañuy gëmloo nañu suñu suñu candidat bii de bu falo aussi loolu bëggoon naa ko wax xaw ma ndax dina ci xaj waaye ñu ñu fàtte ni seen candidat moo taxaw promettre fi un million d'emplois te moom ci koo xamante ne ni mu ngi mu ngi yàgg nekk dans les politiques de la république depuis loolu chômage bi gën a gën a gën a yor kan kan moo kan moo promettre c'est un million d'emplois Amadou dama ne mhm. c'est très normal mhm. parce que li ma wax nii c'est faisable c'est la personne waaw c'est la c'est la personne de Amadou Ba ba nga xam ne moo ñëw benn Sénégal leen fan ma man déggoo ci Sénégal fenn fu ñuy dem. naan mais un million d'emplois yooyu moom en tant que premier ministre bu fekkee moom mënul def li nga xam ni moom mooy doon. yombal emploi yooyu le mais tamit moom am na sañ-sañ taxaw. pro def proposition à Macky Sall. par rapport ak euh, chômage bi nga xamante ni moom moo tënk dëgg bi. am na maintenant. donc tey jii c'est un peu contradictoire bu taxawee. non c'est pas contradictoire du gouvernement. c'est pas war a mën a coordonner toutes les activités des rien. non je dis ministère yëpp le premier ministre. Euh, c'est il coordonne l'action gouvernementale. loolu nangu nañ ko teg nañ ko nële mais dama ne. yóbbante galgal mhm. dafa tëjul làmb. danaa xam ne da ko doon wax mu dem wax jiitu réew pour njiitu réew mi xool dans son pays la ndax xaj na ci wala xaju ci. tey kooku mooy la man dans mon programme. dama ci jiital ndaw ñi ak seen xëy. ndaw ñi ak seen formation. fexe ba ndaw bi am formation ba nga xam ne marché bi dina ko soxla ba jël ko mu mën a liggéey. te d'abord c'est ça. parce que tey ndaw ma nga xam ne dafa xëy. dafa seen programme bi dëgërul de. mais programme bi la yóbbu bu jógee taxaw da la ne baale. est-ce que vous avez lu notre programme. million d'emplois yi ngeen di wax nii non non non je demande yow lire nga suñu lire nga suñu programme. liir naa ko de waaye seen programme parce ah, man man man ce qui est paradoxal non parce que parce que au fait ce qui est paradoxal mooy un million d'emplois yi nga xamante ne ni moom il était le mieux placé pour yombal ko ndaw yi dem ba nekk candidat ñëw est-ce que tey jii ni moom bu nekkee président est que loolu dina ko mën a wéyal tamit si loo xamante ne yow tu tu avais toutes les raisons pour def ko xamoo dooley premier ministre ak dooley président. quand la comparaison. entre non defuma comparaison de le pouvoir de faire une proposition. au président de la République. pas seulement proposition mais il a dit qu'il n'a pas fait cette proposition. maintenant qui t'a dit qu'il n'a pas fait cette proposition. tu as dit que il a le droit de faire une proposition. qui t'a dit qu'il ne l'a pas fait. mais man su ma la la politique du président il y avait d'abord l'emploi des jeunes. Ah, ces emplois là. tey jii le président Macky Sall def na ci loolu. malgré que nag nous sommes dans un pays ba nga xam ne président Macky Sall dafay fekk un enseignement général peut-être man ci laa jàng peut sax yow ci nga jàng. Mm-hmm. maintenant le président Macky Sall nekkoon di réformer cet enseignement boobu noonu. fexe pour que l'enseignement devienne professionnel. tout les euh, euh, comment dire euh, la mise en pied de ces ISEP. la mise en pied des des des facultés yi nga xam ne ça parle dans dans l' enseignement professionnel. maintenant mënoo fee fekk nga xam ne lettre moderne la jàng. Mhm. kooku bu réussirul concours euh, mhm. pour mu am liggéey na xaw a métti ci moom. dina xaw maintenant euh. il faut il faut il faut il faut orienter la politique d' la politique de l' maintenant loolu noonu ci la. ci loolu moom loolu xam naa sax dañuy ñëwaat beneen plateau parce que waxtu bi dab na ma te fi mu nekk dafa am benn question boo xam ne tamit il faut ma poser la ko ak beneen boo xam ne yéen ñaar lay concerné mooy gis nañu recours bi nga xam ne PDS moom la def tey euh, à la cour suprême mu ànd ci ak le front démocratique pour les élections inclusives recours bu ni mel rek yow ban jàngat nga ci am. ci tënk man dama man dama mm-hmm. dama jàpp ne. Euh, même bu fekkee ne gëm naa ne. Mhm. conseil constitutionnel def nañ ay erreur ci processus électoral. Mhm. man dama jàpp actuellement fii fi toll nii. Mhm. nañ dem dia vers des pour man c' est le c' est minimum quoi. gis nga buñ fi jéem a dugalaat ay no recours. ñu dem cour suprême cour suprême nar a annulé waat ñëpp dañ ñuy gën a sonal. te tension bi am Sénégal pour que tension bi jóge fi. il faut que d' abord ñu ñu fermer cette page là jàll ci beneen page. Euh, ils sont nag dans le dans le dans le dans le mhm. Mhm. Euh, man je suis un légaliste man dama gëm ne nit ki fa nga war a euh, xeexee fa ngay dem nga xeexee ñoom taaluñ pono taaluñ kër jàmbur defuñ dara liñ jëm mooy dañuy dem dans des procédures. Mhm. bindu recours yóbbu cour suprême. cour suprême bu ci statué ci diggante bi bu nee tey annulé loolu ñoom la incombe mais man neexu ma. te xam naa suñ suñu candidat muy Amadou Ba et la coalition Benno Bokk Yaakaar. lépp lu ñu yàkkamte actuellement mooy aller vers le vingt quatre mars incha allahu rabbi fajar teel ñu xëy sangu ba set dem votel Amadou Ba taxaw sécuriser vote bi ngoon nga ñu ne wiiw Amadou Ba mu fàllu premier tour ñëpp noppalu loolu la ñuy ñaan yàlla d' accord euh, une dernière question boo xamante ne yéen ñaar ñëpp lay concerné mooy euh, gis nañ ni euh, kooku di Bassirou Diomaye fay nga xamante ne ni euh, la division du temps d'antenne mooy euh, mooy le temps son temps de parole dañ ko dañ ko interdire euh, foofee ci RTS lu ni mel nga ci am abi euh, dama jàpp ne bu ñu demee ba accepter ko candidature am mu nekk candidat dafa war a jouir de tous ses droit mm-hmm. donc même bu nekkee ne Bassirou Diomaye Faye génnul pour waxante ak sénégalais mm-hmm. yi défendre campagne am mm-hmm. défendre projet am défendre candidature am am na représentant am na mandataire am na mhm. directeur de campagne. Mhm. donc temps am dañ ko ko war a accorder. sama gis-gis la man personnellement. d'accord Abdou Hadj. bon que. Euh, est que du euh, injustice waaw je pense que ci ci loi bi. Mhm. binduñ fa benn yoon temps d'antenne bi. binduñ fa benn yoon le représentant du candidat amu ko. n'est-ce pas donc tout à l'heure j'ai que moi je suis légaliste. donc un légaliste mooy ki xam ne textes yi la ñuy appliquer. le comme la RTS am na droit bu ñëwee ñu lire textes yi xool. textes yi on on on a jamais dit le représentant du candidat. Donc, puisque les textes excluent les représentants du candidat, donc le, son, son représentant ne peut pas enregistrer, c'est simple. d'accord voilà instant bi waxtu bi xooj nañu mu nekkoon euh, seen émission valise diplomatique ma ci doon ànd ak Abi moom euh, mu ngi bokk ci parti républicain pour le progrès mooy parti bu candidat Déthié Fall doon ci ànd ak tamit Abdou Khadre bu alliance pour la république APR ñu doon waxtaanee lépp loo xamante ne ni actualité politique la campagne bi le cas le candidat Amadou Ba et aussi le candidat Déthié mu nekk kon waxtaan bu am solo bëggoon naa sax ñu gënoon ko yaatal mais fi mu nekk nii waxtu bi moo ñu daw donc dileen leen jaajëfal bu baax a baax ma leen di remercier Abdou Khader ak Abi pour la disponibilité waaye tamit di remercier ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ñu doon euh, seetaan ci disponibilité beeg yooyu noonu yëpp bu ko defee rek ma leen di jox dig daje ci beneen émission valise diplomatique ak yeneen invité merci beaucoup